li ñuy wax jëf ju ñaaw ji parce que bu jógee ci ñu dénk la ne la protéger l'environnement yow nga jël environnement di ko jariñoo yow ak say mbokk parce que jàpp nañu pétrole bi noonu la jàpp nañu alal réew mi noonu la jàpp nañu suufu réew bi pour ñoom la léegi nag jàpp nañ ni li nga xam ne am nañ ko ci gàncax ak mala pour ñoom la jàpp nañu wér-gu-yaram tamit pour ñoom la mais ñun moom nañu dem rek des ak feebar yi lu mu def baax na loolu nag sénégalais yi majum kanam la ñoo ko war a fayal beneen bi mu jëm ci euh, wàllu forêt classée bi xanaa dañ ciy waxaat rek parce que def nañ ci ay waxtaan fële ca mbaaw defaat nañ ci ay waxtaan ci ay euh, coalition yoo xam ne ñoo ko bokk ak ay organisation yoo xam ne dañoo taxaw di liggéey ñu mel ni FRAPP ak ñooñu mais li ñu ci wax lu leer la li ñu ci wax mooy forêt bi fore bi mi ngi tolloon ci 700 hectares toll bu tolloon 700 hectares nga toog ba neex la nga déclassé lu bëri daf ko ville neuve lii état bi la lii ka nga xam ne moo jiite bokk moomeel ga moom la nañ ko wax moom la moo ci dugal loxoom ñu jël ci suuf si waxuñu dara ñu ñëwaat jël autoroute à péage yokkaat jël ci lu mat 30 à cinq hectares yoo xam ne dañoo dagg ay garab rek remplacer ko plan de gestion environnementale ba léegi kenn mënuñu wax fan la toll ci delloo garab yooyu ñu ñëwaat indi terre xottiwaat àll bi jëlaat ci lu ëpp 20 hectares jëlaat mais waxuma loolu ñu créer benn post boo xamee ne bi nii yenn xeetu Mali yi nga xam ne ñu war yóbbu Sindia dañuy nekk foofu centre de culte donc ñu bëgg ko def dépôt sauvage comme comme comme Mbeubeuss pratiquement. loolu doyatul sama gars yi ñu fay installé ay station di dagg lu leen neex ci biir ñun ñëpp ñu toog di xool mel ni fore bi da am keneen ku ko moom ku bokk la ñun askanu Sénégal donc moo tax ñuy woo askanu Sénégal war waruñu too nangu dara lu fa jóge bañ fay indi la joolaa kenn tàgguwul kenn dañoo ci sale dugal fa ay néew donc loolu moom moo tax ñu wax ni li nga xam ne mooy forêt yi. parce que ñoom ñoo voté nag constitution boo xam ne dañ ne les ressources naturelles appartiennent au peuple donc tey képp koo xam ne population nga waroo nekk rek politicien wala nga nekk acteur politique comme ñun da war a nekk koo xamee ne bi nii da ngay taxaw di casse droit di laaj li nga xam ne moom nga war a laaj loolu nag la ñu wax ni fore boobu moom du ñu nangu kenn laal fa dara parce que à chaque fois ñu déclassé wala ñu jël ay espace waa Guédiawaye du ñu ko fàtte lañ fa daggoon boo demee ay promoteur moto na 13 hectares ñu ne ay armée la ay promoteur ñoo fa nekk di fa dagg ay kër di ko tabax lépp lu ñu déclassé rek jël nañ ci seen wàll ba seen xol sedd tey jii boo demee park ñoo ko la ko baa rek fay jàpp temps yi la passé ay nit yóbbaale ay maire ak ay responsable yoo xam ne fa lañ doon ci ay exploitation or ci biir parc ñoo ko la ko baa ñii gëmuñu dara ñii seen bopp lañ gëm seen i koom-koom ak ni ñuy dundalee ak lu ñuy aaree seen njaboot ëllëg te nag na leen wóor ni muy tey muy ëllëg duñ leen ci baal dara dañ leen ci topp ba mu jeex lépp loo xam ne nit wax na ko fi dina ko gox lépp lu loo xam ne askan moom nga jël ko dugal ko sa enclos wala sa kër wala feneen ëllëg askan bi na la ci topp parce que duñ la ci baal parce que Pastef moom xalaatul benn yoon loo xam ne alal jee ko moom askan bee ko moom mu ciy négocier benn parti wax nañ leen ko ci littoral bi képp ku fa yor loo xamee ne nii moomoo ko danga ko delloo lii nga xam ne aussi jël nañ ko danañ ko delloo ci nii wala ci naa donc fore bi duñ ci négocier danañ ci ànd ak ñëpp ñoo xam ne dinañ xeex pour aar forêt bi parce que ci biir zone urbaine yi li koy dundal léegi ci àddina bi yëpp tax nit ñi dafa dem di leen seeti bokk na ci mu am ay àll ngeen yaakaar ne li am jam ñaajo yoon la dëkk boo xam ne dañ fa waroon am ay espace vert am fa ay nangam mu jël def ko béton te suuf soo xam ne wóor nañu bâtiment ya fii ak 30 dañuy disparaître parce que suuf sa du ko nangu donc loolu yàq googu ñu koy xool mel ni ñu ay boroom xam-xam amuñu njàng mu ñu may ñu arrêté leen duñu xaar nag fii ak 50 ans musiba am ñu doog a wax ñu léegi la ñuy wax ci loo xam ne war nañu taxaw beneen fànn bi mi ngi jëm ci wàllu armeel yi ñëpp xam nañu Pikine dafa am problème mu armeel la ñoom jàpp nañu bu ñuy waxee waxu suuf wala séddoo rek pour seen bopp la ngeen yaakaar ni tegale bi ñuy tegale doomu aadama yi ci armeelu Pikine yi loolu lu rafet la est-ce que ñun doomu pikin yi am nañ droit ku nekk xëy rek toog bis boo amee dëj wala nit dee mu wóor la ni fañ koy denc dañuy suul nit pour sulli ko mu wóor la bu ñu jëlee nit ak fu ñu ko jëlee muy Tiwaawan Jaksaaw muy caaro yi jëmale ko jàmmagal wóor na ne fañ koy suul dañuy sulli nit pour suul ko fa mu wóor la ni tey fii ak ñaari weer su sama gaay yi nga xamee ne bi nii ñoo yor moto pompe yi di dugg ci armeelu Pikine yi dugg armeelu Jidda caaree ko yi dugg armeelu Caaroy géej yi dugg armeelu jàmmagan yi suñ ko taalul waxuma ne teg tànk mais kenn du fa jege ba fay suul nit est-ce que ay nit ñoo xamee ne bi nii am nañ lu ñuy xalaat xalaat nañu ñoom mën nañu perte seen bakkan ba ñu war leen yóbbu ci armeel yooyu que Sénégal ñun am nañ capacité dem di jënd ay espace di ko fay ca euh, armeel ya nekk Yoff amuñu possibilité boobu ñun armeel yi lañu yor donc dañoo war a sàkkul ginnaaw ba ñu jëlee lépp la ñu am ginnaaw ba ñu jëlee suñu wér-gu-yaram bàyyi ñoo Covid bi ginnaaw ba ñu jëlee suñu suuf jël suñu alal jël suñu petrol jël suñu suñuy suñuy parc ba jël kéwal yi nga xamee ni bi nii rek matuñu sax diggante ñeenti téeméer ak juróom fukk di tibb di yóbbu di leen neex ngir yàlla xanaa nag bu ñu deewee ñu suturaal ñu ut ñoo xam ne la ñuy def seen responsabilité la à ce que ñu trouver ay cimetière pour képp koo xamee ne bi nii génn nga àdduna ci biir Pikine te loolu du ñu leen utal solution am na ñu siy jox ay solution mais yaakaar naa ñoom ñoo war a trouver solution bi parce que loolu seen maanaam la mais du ñu leen may aussi ñu profité ci pour jël ay espace yoo xam ne ëllëg dañ koy def ay dëkkuwaay wala ñu def ko ay espace privé yoo xam ne ci lañ fas yéene moo doon position ne bi lay défendre bëgg na ko siiwal te xeex bu ci am nañ ko am dañuy wax nag ne activité bi ñu def nii première action la mooy que danañ wax ak nit ñi ñu dégg deuxième action bi su laajee ñu wàcc terrain bi danañ wàcc terrain bi leneen li mooy li nga xam ne dafa jëm ci wàllu yoon su ko laajee aussi yaakaar naa ni loolu moom euh, askan bi ak ñëpp ñoom ñoo ci war a taxaw pour ñu topp ñi nga xam ne ñoo ko yor léegi léegi procureur bi nga xam ne ñu lay représenté ñu woo ko mu def li war a def beneen fànn bi mooy li ñu war a xam ne combat la bu ñu war a def ci mener sur le terrain wala menera sur le terrain à Pikine parce que Abdou Karim Sall tamit mënul nekk nit koo xamee ne bi nii xamee wuñu la lu loolu ci guerre ay nit ci jënd ay nit amul discours bu rafet wala waxtaan wu rafet boo séq ak doomu aadama ci biir Pikine ba ñu mun la ko seedeel saa yu ñu la déggee rek mooy alal yor mooy ñoo jënd mooy ñoo jox ay weccet ngir ñu mën laa topp wala ñu topp ki àndal loolu yorul am réew doomu Pikine yi ay nitu góor lañ du ñu ñuy jënd du ñu ñuy waxaale du ñoo xamee ne bi nii jàpp nañ ni Reug bu fi ñëw boo yorul xaalis kenn du la topp gëmatuñu loolu loolu jeex na parce que élection yi passé wane na ko élection la jóge fi wane na ko ñaa leen élection locale yi passé daanaka amu leen woon majorité il a fallu que président di woote ca pale ba ñuy jënd ay nit pour mën a am conseil yu leen may ñu teg fi seen nijaay bu dee géejawaay c'est la même chose bu dee ci biir bu dee ci biir Pikine la moom ñëpp xam nañ ni fanweer juróom-ñaar téeméer boo gis fanweer yi juróom-ñaar fukki pratiquement wala leen ginnaaw donc mënuñu fee taxaw bëgg a ay moyens yoo xam ne moyen politique la li ñu def ci ceeb beeg yëpp gis nañ ko ay jëf yu ñaaw loolu taxu ñoo wax mais lii nga xam ne Sénégal la ko bokk ñu ci négocier yàlla def ki nga xam ne moo ko jiite nekk fii pikin bëgg yàq deru pikin ñu xamal nit ñi waa Sénégal que ni kii du waa Pikine Abdou Karim Sall n'est pas de Pikine ñëpp xam nañ fu mu bokk ñëpp xam nañ fu mu jógee ñëpp xam nañ lu ko fi indi donc du ñu takkal doomu Pikine doomu Pikine rus na jël lu mu moomul